برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينا يلا يلا بوصل تي بيرتي يا ربي يلا يلا تي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 su fekkee da nga am xel. bu fekkee yow da xam xel. da nga gërëm leen. da nga gëlëm. kon nag. kon. ci woowu waxtu. ba te ba gërëm loo borom boobu. bu mer mi tax tëjëliyaat yooyu jóg bokkuloo ji. ci. kon war nga sant yàlla bu yàlla bu baax.